lu bés bi entre Assel Group ak euh, Global Trading di rafetlu seen taxawaay comme ni leen ko waxoon sànq rek ñun suñu concept tey lëkkaloo Assel Group bu Turquie ak Global Trading bu Sénégal pour def import export la ñu Sénégal yi doon demee fee di dem di uti ñu mën a jël société yooyu teg ko fii ñuy liggéey at opérateur économique sénégalais yi ba xam ni ñoom duñ mun a demati lu bari dem di jëli foo seen koom-koom tey looloo tax sama partenaire bi euh, monsieur Younous ñëw pour xool nan la ñuy accompagner opérateur économique yi ak homme d'affaires sénégalais yi pour ñu xool nan la leen di jàppale. sunu deuxième point xool comme li ngeen di wax ci côté mbënn mi ni ñi def immigration di dem ci géej gi mun a créer emploi sénégalais yi toog fii jeunes yi si seen bopp tey looloo tax a yëkkati. global trading ma indi yi ci tàng tàng bi nga xam ne tey yi Sénégal problème boobu am nañ ko kenn nelawatut nit ñi ngi jaar ci ndox mi parce que liggéey amatut nous on va créer de l'emploi pour les jeunes bépp sénégalais boo xam ne bëgg nga liggéey at ACEL groupe at global trading ñi ngi teg benn projet boo xam ne ànd ci at Fortiness groupe boo xam ne sunu mag Abdoulaye Dia ko diriger pour ñëw soutenir sénégalais yi. ànd ci at suba teel agence turki yi privé bi état bi da leen di jàppale kii Assel group privé la day dem ci état bi jël fond bi mais fonds yooyu buñ ko jëlee il nous faut des garanties de l' état sénégalais loolu ma leeral ko tey mën ngeen ñëw ñu jox leen suuf état bi jox ñu suuf nee ñu tabax leen ci créer leen ci emploi bu boobaa mën nañ ci liggéey te bu ñu jëlee projet boobu dem teg ko yóbbu ko état turc dañ koy financer. loolu moo waral coopération turc Sénégal yégal naa leen loo leen am loo leen indi boo leen ko tegee incha allahu rabi dañ ci taxaw ci côté jàng ci côté électricité côté bâtiment côté éducation lépp ñun pare nañ Asel Group ak Global Trading ak Fortiness Group jàppale opérateur sénégal yi. vu le Covid tey loolu mooy sommet xalal expo sommet xalal expo bi dafa am expo ak warlu xalal simit warlu xalal bi. mooy dem nga defi b bii ñu am ay partenaire ren bii Covid bi novembre bii la waroon am le vingt cinq bii mais dañ ko pousse ba le vingt et décembre mais n'empêche que sénégalais yi nga xam ne opérateurs yi inscrits pour jënd seen paquet si pour dem incha allah warlu xalal simit bi dina am di vingt et décembre au vingt quatre décembre à Istanbul bépp opérateur ak homme d'affaires boo xam ne bëgg nga ñëw teew ci loolu. nga approché ñu nga ñëw inscrire inscription yi mi ngi nekk en ligne ba léegi incha allah mais expo bi buñ koy wax mooy amul stand ren expo bi en ligne lañ nekk parce que Covid bi moo tax mun na mënuñu jël di jaxase nit ñi ñi nekk di jaay mais en ligne lañ koy def mais war warlu xalal simit dina am incha allah on fait appel à tous les sénégal ku nga xam ne tey bëgg nga am registre de commerce ak NINEA ah, boo ñëwee ñun dinañ téye sa loxo yóbbu la ba chambre de commerce chambre de commerce loolu la fi nekkee. nga jël say kayit registre commerce nii na kenn du ko defal kenn da ngay waaxu te foog naa jeune bu bëgg liggéey même booy jaay gerte caaf war nga am registre commerce am nii na am import export ci loolu boo ko tegee loolu lañ la war a mën a jàppale ci la ñuy mën a ràññee kan moo am société ak comme ñun bu ñuy ñëw di liggéey chambre de commerce la ñuy woo ne ko est-ce que monsieur X xool registre commerce nii na yaa bi est-ce que c'est valable c'est comme ça qu'on travaille ku indi registre de commerce nee bu ñu ko tàppee dañ xam ne ndax ki société bi ça existe yaa l' adresse exacte ñu mën a jël lëkkaloo ak yow jàppale la.